gannaaw nag moo ngi toog euh, tungu ne moom du teew ñu nat ci ak ñu bàyyi ko mu nuyoo euh, ñu yaatal waxtaan wi président nuyu naa la. Ousseynou maa ngi lay fay di nuyu internetu wasaare yëpp di nuyu assistance bi Xaadim euh, Anta di nuyu Eumeu Sène junior di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci combat bi mu jëm di ñaanal guy gi ak mbëru géej waay yëpp ñu jël combat yàlla may leen ndam di nuyu Sénégal gi yëpp nag di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla corona bi gaaw génn fi waaw ñu delluwaat ci lañ nekkoon. gannaaw yaay prési euh, ñu gis ñu gis fan yi fan yi coow li bari na xale yi nga xamante ni nii amaguñ combat balaa ñu ñëw ci loolu sax damay damay laaj kenn mooy prési ba noppi. waaw prési Pathé de mën naa ni bon benn dongo daara la rek boo xam ni euh, màggee géej waaye Grand Dakar xam nga village artisanal bu Soumbédioune xam nga def un peu Europe ñëwaat xam nga toog Sénégal. di évoluer gaa yi dénk ko école de Mor Faram ñu nekk si di góor góorgóorlu waaw président bon lool daal laa la ci mën a wax ko pour l'instant quoi président xam nga ku am benn waay la nii rek quoi benn benn surga la rek quoi waaw. <laughs> Euh, gannaaw gannaaw président la wax mais est-ce que jiite écurie yomb na. waa jiite écurie nag yomb na yombul parce que ñun dañu fekk ci ñuy dund làmb nekk ay amateur waaw foo ñu fekk rek ñu ngi critiquer école de lutte bi naan lii war na am lii warul am nangam ak nangam ba ñu xëyee suñu papa fa dem di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana mu jékki-jékki wooluñu yëkkati école bi ni ñu am. ñu ne ko père lii lan la ni mun a am école bi dénk nañ la ko waaw parce que lu jiitu loolu nag tout le temps su ma daan dem stade damay taal sama oto jaar fa jël ko ñu dem seetaan yi ma jaar fa jëlaale yenn gars yi xam nga et puis ñu gis ma may may may jàppale yenn boy yi ci yenn combat di ànd ak ñoom xam nga nekk seen supporter di supporter Eumeu Sène Junior di supporter Gouye Gui ak Pape Mbaye Mbaye Tine Mbaye moo ci nekkoon suma mbër moom laa ci gënoon a kii daal moom laa ci gënoon a gis moom laa ci gënoon a gëm waaw parce que moom moom moom combat moom des fois sax dem ci ci supporter fi ñuy toog. gannaaw bu loolu lépp weesoo ñu gis xale yi. Covid bi ñëw. Mhm. Euh, te gannaaw yaay président écrit bi. Mhm. naka naka naka naka nga leen naka nga leen di ñaaxee parce que boobaa ak léegi bu saison bi tijjee xale ku ne ngay gis ki am benn combat ki am benn deux combat saison bi ñëw Covid bi ñëw kenn suñu puusuñu paasuñu ak ni làmb méttee loolu la ñuy wax xale yi. waaw di wax ñu gëmaat yàlla rek xam ni euh, lii moom Covid bi moom euh, làmb làmb impacté na mais àdduna impacte Covid bi àdduna bi la yàq demoon nañ ba tëj fi aéroport yi demoon nañ ba tëj fii lépp kon loolu dañ koy sant yàlla xam ne li dal ñëpp moo leen dal rek loolu du problème loolu kenn maanaam lu mën lu nit mën a comprendre la parce que situation mondial la xam nga OMS jaaxle état yi jaaxle affaire bi di gën di bëri yow sax nga tiit ma tiit ñu ñëpp tiit xam nga ak ak commencement bi ak promotion bi Covid bi amoon demoon na ba ñun ñëpp mu tiital ñu dañuy leen wax ñu gëm yàlla xam ne lii fi nekk nii moom moo tee làmb am mais bu fi bu dul woon lii kon xëy na heure bi waxatuñ sax waxe waxe waxe kii parce que boo xoolee ren li taxaw ci làmb sax. ak daaw mosul taxaw ci làmb waaw di wax booy lan lan waxoon rek comme Covid ñëw na ku nekk nga dem nga entraîné si sa suruq nga préparé sa bopp xam ni affaire yi euh, maanaam euh, combat day bette parce que décision yi président de la république moo ko jëloon def décret arrêté manifestation yëpp décret boobu tout le temps mën na. mën na changer te su changé bu ñu tijjee làmb bëgg nañ ñëpp pare en tout cas mbër yëpp biñ li ñuy tàqalikoo ak ñoom dañu leen wax ñu dem seen ruq ñu entraîné utal nañ leen saal géej gaa ngi nii xam nga ku ci nekk yaa ngi préparé sa bopp ci ruq waaw euh, bu loolu la weesoo ñu gisoon équipe moo faram am benn dayo bu mu àggoon su ma ñëwee ci guy gi dañ naan guy gi doon nañ fi dox combat mu ëmma seen bu Pikine mhm. gars yi doon nañ ko wax boog du moins mhm. doon nañ ko wax mhm. kii di mbaytin am na niveau bu mu tolloon Pape Mbaye am na niveau bu mu tolloon keneen ak keneen ba ci ëmma seen junior mais léegi ñu gisee dafa beese parce que guy gi boo xool bu mujjee ba ba na fekk ay Siteu jóge fi daal ci rëg ak mbaytin wàcc na Pape Mbaye gisatu ko ëmma euh, seen junior moo ngi daal ci Kalma Ndour lan moo waral bees beese boobu noonu waa bés boobu bu fekkente ni li ko waral ci li ma jàpp guy gi moom bu dee particulièrement moom moom moo ñëwoon ci làmb liggéey ba gars yi boole ko ci mbër yi après mu caaxaane entraînement caaxaane état de forme am parce que guy gi dafa liggéey ba làmb commencé ko fay euh, bi muy dugg ci tournoi bi tout temps dama koy rappelé dama naan ko foofu laa la mere boobu nag man newuma dara ci école bi boobu en supporter laa woon bi muy dugg ci tournoi bi combat mag nees ba ni muy bëreek Boy ñaa guy gi zéro entraînement daawul entraîné daawul def dara. daaw ko indi ba parce que en tant que amateur laay wax nag. digganteem ak nees la gëj la indiwul état de forme Tafatine euh, Ama Balde ak euh, même Zos bi mu ko bi mu dóor Zos mu daanu indiwul dara. parce que ñun guy gi bu baax bu jekk boo ko gisee rek danga koy xam boobu nag moo tax euh, bi làmbam jàllee ak Boy ñaa ma dem fa waxtaan ak moom ñu ko nag booy. yow entrainement moo la may li nga amoon ci làmb lépp su ma soñoon nag danañ xoolaat sa sa comportement après ci lañ waxtaanee mun ma prési maa ngi dem États-Unis su ma demee ba ñëw di nga xam ne guy gi ba woon ñëwaat na. ma ne ko soxlawu ma an bu ma yónnee image bu ma yónnee photo li nga wax man xam naa la te am na fu ma ko teg léegi nag bi mu demee ba ñëw wax dëgg yàlla alhamdulilah lam ñu indil contre Siteu wax dëgg yàlla doy na doy nañu. dal na suñu xel kontaan nañ ci di ko wax nag mu bañ a teggi tànkam foofu su ma ñëwee ci Eumeu Sène junior mooy li ma lay expliquer tout le temps maa ngi koy expliquer ci yenn groupe yi Eumeu Sène bi mu déclenché heure bii sax xëy na mën na ni moom moo waroon nekk tëdd fil parce que moo guy gi ay seex lañ leen doon woowee ci làmb mu toj mbapat mën bëre def ay formation nag quoi mais fracture moo moom mu ngi koy expliquer keroog bi muy jàkkaarloo Kalma Ndour accident ci scooter am fracture loolu fracture xam nga pour nga dellu siwaat nekk sportif maanaam doon jàmbaar ak doon gaynde sax moo ko indiwaat yaa ngi dégg wax bi kooku blessure moom moo ko moom moo ko indil euh, moo tax euh, après tamit déplacé wu na fi dem pikin mais loolu lépp damay jàpp ne dafa dem explorer yeneen yeneen yeneen école ak écurie yu mag parce que lu mel ni bul faale boo fa duggee tamit am na leen loo fay jàngee nga jaar fa dem dugg taaj si nga tamit am na leen loo fay jàngee parce que taaj naanaan la ama seen naanaan la nga boole kook formation Mor Faram suñ papa ji yàlla na ko yàlla xare àjjana kooku moo tax ama seen nekk un lutteur boo xam ne bu ko yàlla defee jàmm wërsëgam nekk ci làmb ne fii ama seen mu nekk dana fa dem man si sama gëm-gëm loolu la Mbaye Tine tamit bi mu defee année de feu boobu mu def dafa génn ñu dóor ko ñu gaañ ko dóor ko jaas si loxo mu toog deux ans def deux années balance moo tax ay moromam raw ko ci entraînement. boo yi kay fi mu toll nii lañ ko def. waaw moo tax moo looloo ko indil perte de performance parce que xam nga loxo mooy bëre. bu la buñ la bettee door la loxo si jaas si loxo nga nekk di ko faj pendant un an deux ans ñi nga daanoon sax bu ñu continuer seen entraînement dañ lay romb ci entraînement mais bu dee bëre njool mu mel ni moom bëriwul. mbéy ne ko kuréel la ñaari njool yooyu saf sàpp bëre mën bëre ah, non bëriwul ci làmb ji moo tax moom tamit loolu la pambaay nag euh, am na benn. waaw Ndiaga Sarr waaw mooy xalifa bi instant bi nii comme Baye Mor Faram dem na Ndiaga Sarr mooy suñu xalifa bi mu toll nii moo jël xalifa gi waaw Ndiaga Sarr instant bi nii demoon na ba xelam xaw a génn si làmb waaw mais instant bi nii pare na pour ñëwaat bëre parce que barki dem ñu ngi koy wax combat am ak Zambala mun ma prési man pare naa xam nga euh, bon moom tamit même même action la parce que bi muy jël euh, Serigne Ndiaye 2 boobu fekkul muy entraîné weccit ñëw xam naa rek euh, mu ne xaaral ma jël ko dem seetu ci quoi noonu la demee mais loolu moom dañ ko koy pardonné garaawul quoi parce que carrière moo gudd des fois du ñàkk nga def yenn erreur yi en tout cas booy bu fekkonte ni teg nañ seen sport ci yoon amuñu yenn gàllankoor yi kon heure bi am na fu ñuy àgg mais àdduna nag moo demee noonu. te yàlla ay mbiram moom moo koy dogalee ku nekk jëmm ju nekk xam nga dama leen wax chaque jour danañ jël ci ëmma seen mu mag. Euh, exemple parce que Eumeu Sène dem na ba benn instant ñoom Coly Faye sax dañoon demoon da nga naan dañuy dem bàyyi ko fi te pourtant mais moo tax talent fu mu nekk ak ak ak xam-xam ba pare nga gëm sport. looloo tax ma bëgg ko quoi dafa gëm sport boo xoolee yaramam da nga ko ciy gis tout le temps malgré que son âge gis ni il très discipliné esportivement na booy xool ci moom bu kenn découragé parce que euh, dafa def déclic bu doy waar ci làmb ñëpp demoon na ba ñu non mooy loolu mu ñëw fekk ñi gën a jafee daan ci làmb mu daan leen. moo tax vraiment ñu ngi koy saluer di ko nuyu au passage quoi. gannaaw yooyu yëpp jeex na boo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw di leen remercier di kontaan si seet si bi ngeen ma seet si di ñaanal Sénégal gi yëpp yàlla def fi jàmm di ñaanal tamit millier làmb monde làmb ñu bokk ndey bokk baay. parce que gis nañ Boy Niang mu woote gis nañ Gris Bordeaux mu woote gis nañ waa Arels woote euh, gis nañ euh, promoteurs yi di intervenir am yenn quelques promoteurs def ay points de presse loolu lépp nag benn force la boo xam ni euh, luy dimbali làmb la di waxaat waa làmb ñu bokk ndey bokk baay di ñaanal yàlla promoteurs yi nekk ci làmb huis clos bi ñu jëm yàlla na nekk réussite totale ci ñoom yàlla nañ ci am lu mu daawul am ci lële. di ñaanal CNG monsieur Bira Sène la président di ko ñaanal di ñaanal euh, équipe bi yëpp euh, li nga xam ni fa fil président Alioune Sarr indi woon làmb ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñu yóbbu ko sax fédération ñu ngi ñaanal président écrit yi di ñaanal mbër yeeg ñëpp ku ci nekk li sa soxla yàlla faj ko du nuyu suma yaay du nuyu suma papa du nuyu suñu waa dëkk waa Mbelgoor Kouré di nuyu suma doomu nijaay yi nekk foofu noonu sama nijaay Njaga Diop maa ngi koy nuyu di nuyu ay doomam di nuyu. tund woowu yëpp Kébémer Tobbi Diop Mbelgoor Kouré di nuyu waa Kandala waa Gaddafe di nuyu waa ngin ngi neew bi ma juddoo di nuyu waa Géejawaay di ñaanal yàlla Balla Gaye numéro 2 yàlla may ko ndam ci kaw Bombardier di ñaanal yàlla Lac de Guiers numéro 2 yàlla may ko ndam ci Eumeu Sène di ñaanal yàlla guy gi yàlla may ko ndam ci kaw Reug Reug di ñaanal yàlla Eumeu Sène junior yàlla may ko ndam ci kaw Kalmandour di ñaanal yàlla euh, Mbaye Tine junior yàlla ndam ci Jara 2 ainsi de suite mbëru géejuwaay yëpp yàlla na leen yàlla may ndam en tout cas ren daal li mën a li mënta ñàkk moom xam naa ni du ñàkk ay benn benn yu sew sewaan mais nag euh, maa ngi ñaan mbëru géejuwaay yi mag yëpp mbëru yu mag yëpp am victoire di ñaan tamit euh, maanaam jàmm yàgg fii géejuwaay yàgg si Sénégal di la nuyu di nuyu Khadim Anta di nuyu Eumeu Sène Junior di nuyu yéen ñëpp di la nuyu di leen ñaanal jàmm waaw gis ngeen noonu lay demee président lañu amoon moo xamante ni moo jiite équipe Mor tey nag li leen andi loon bëgg a waxtaan ak yéen di leen jox dig daje beneen yoon ci Wassare làmb di nuyu sama cameraman bi nga xamante ne l'infatigable la aadama di ko jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen jaajëf.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 yàlla bi ñu ko liggéeyee